série de la banlieue mi ngi noonu mooy joué tey five ñëw na moom ngeen gis nii muy droite Sidi Diop moo nekk ci biir oto bi egsi na <laughs> waaw waaw xale baa ngi noonu waaw waaw ndeysaan ndeysaan oui c'est le phénomène Sidi Diop. ah oui. ñëw na. mu ngi na. keroog duy na. duy na faay def li de ci dimanche tey tey ci dimanche ji ah. mais mais mais la <laughs> waa train de fils musique la. musique la way way waaw ndànk ndànk waaw jaajëf tay euh, euh, tay ndeysaan wax nañ mi ngi jàkkaarloo ak ak ak ak ma nga fële Vox Sidi Diop mi ngi fii five gars face to face lañ ko tudde jàkkaarloo waaw waaw. su wàccoon benn benn gars yi am pour moo gën a yomb nañu defal loolu rek. sécurité maximale à ah de Sidi Diop. non buur mais buur da nga a bàyyi xale yi ñu kii. waaw ñu kii quoi buur buur yooyu tamit. mag la mag la mag la mag man nag bii tam waaw mais Sidi le phénomène nuyu naa la. Sidi Diop la waaye dàq dàq dàq dàq. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax mais waaye mon frère à moi. mais Sidi waaw. ah demal pour demal. non voilà gars yi gars yi dafa la gars yi gars yi dafa la gars yi gars yi xool gars yi xool indi. wàccee leen ko rek. voilà. moo ngi noonu buur mana boy mana boy waaw maa ngi lay fay ma frère maa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax a baax xam nga frère ma waaw sant yàlla mais nga keroog si da koy yëngal ah waaw parfois ñëwaat tey yëngal ko gën a yéem dama gis keroog benn Sidi Diop bu engagé keroog benn Sidi Diop boo xam ne dañuy wane ni que dafa am beneen décision majeure dama ne xale maa gën ah mais fii fii dañ doon foo rek mooy li wax rek lépp lu ñu mën def lépp loo xam ne bu ñu ko defee gis nañ lii bu ñu ko mm-hmm. defee suñu ay soppe nañu kontaan suñu ay fans nañu kontaan dama koy def mais lan moo tax euh, nga choisir dimanche pour jouer spectacle waaw parce que démb nag euh, yàlla dafa dogal suma jumeau. Mhm. suma xarit suma lépp da doon joué bërki démb du moins démb Sidika mhm. nga xam ne dafa bokk ci label bi di suñu nawle artiste mhm. ku ne xam ne ne heure may joué fii gis mu ñëw moom it muy joué ma ne pour une première fois comme que day joué nañ leen bàyyi lu ñu jàppoon yëpp dem fekk ko Thiès dem dooleel ko ba dimanche ñu doog a joué euh, mbir mi fi mu toll actuellement ah, uh-huh. ak fi bu bi toll Sidi jekk na psychologiquement pour mën a affronter situation bi ah mais fii situation amu fi liggéey la rek situation amu fi liggéey la rek xale lañu nekk ci yoon di liggéey te di ñaan yàlla yoon yi ñu jël yàlla may ñu ci ndam buur fi yàlla rek moo fi nekk. mais est-ce que cette fois-ci jël nga les mesures a na leen keroog. ah mais bien sûr bien fi mi ngi ci suñu ginnaaw Sidi mi ngi concentré wu pour moo fi nekk mooy lan Sidi. waaw bon yàlla waxuma sax pour man mais képp kuy jeune di way wala nga nekk ci muy menuisier bi mécanicien bi ku mu mënti doon yàlla moo fi nekk ab loo mënti liggéey yàlla rek moo fi. mais gis nañ génne benn tube. yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe. gis nañ foofu rek laay waxee. Mhm. waaw gis nañ nga génne benn tube. waaw bi bu ñu ko dégloo dafay mel ni lu ñu préparé. Mhm. tey la wala démb. jël sëriñ yóbbu jël nit ki yóbbu waaw et pourtant barki Serigne Saliou Mbacke rek laa yaakaar. Mhm. loolu ci diggu confinement bi bi confinement bi defee deux mois laa ko enregistré. xanaa dañ lay dee. ba confinement mais pour pourquoi Sidi Diop da koy yëngal par la force. ah mais man yëngal bi ma koy bi ma koy bi ma koy woy yàgg na. Hmm. loolu ku ne xam na bi may. par la force bi moo tax. non am na yoo xam ne moom peut-être jaam ñee ko ci teg si da koy yëngal par la force li wëg li mais man maa ne dama koy yëngal te ci kàttanu suñu borom buñ duggaatee ci kaw nga xam ne dama koy yëngal. Sidi fan Sidi fan la toll exactement Sidi fan la toll exactement Sidi fan la toll exactement. loolu mooy nekk ci suma ruq di liggéey concentré wu ñu réglé ay morceaux yu am solo hmm. maa ngi waaj tamit clip bu am solo boo xam ne maa ngi koy jox sénégalais yi incha allah fii deux semaines dinañ jot benn clip bu Sidi Diop bu bees tàq mais mais liy am. ni ko bëgg taf waxee. tombe la war ay gaaf. non non non man jàppewu ma ko sax dara man dama liggéey rek sànni ah. def nañ ko bu yàgg peut-être day doog a génn rek ñu bàyyi ma bi mu génn mu génn gars yi bëgg indi ay kio kii mais man maa ngi ci sama yoon di liggéey. Sidi Diop la presse vous merci.